Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Lugare TV. Alors c'est parti pour euh, l'édition euh, de ce jeudi. Aujourd'hui, on est le 29 septembre 2022. Alors on démarre l'actualité avec cette page nécrologique, la communauté mouride qui est en deuil avec le euh, rappel à Dieu de Serigne Abdul Rahman Ibn Serigne Abdul Khoudos de Daro Mousti. Rappelé à Dieu aujourd'hui donc le groupe Lugare TV qui présente ses vives condoléances à toute la Oumma islamique. Поздравляем. À présent, parlons de ces accidents de la route qui font encore parler de ces derniers jours. En tout cas, ce matin encore, un carnet qui s'est renversé. Euh, sur l'autoroute à hauteur de Pikine. Plusieurs blessés ont été dénombrés, euh, comme vous voyez sur ces images. Alors, euh, nous restons toujours avec ces accidents de la route. Retenez bien votre souffle. 70 morts sur les routes sénégalaises. Le procureur de Kaolak, lui, il envoie une note de rappel aux policiers et aux gendarmes euh, face donc à l'hécatombe sur la route euh, sénégalaise. Le procureur Chardien, il a interpellé directement les officiers de la police judiciaire et selon lui, euh, le chef du parquet a adressé donc aux policiers et gendarmes un, circulaire dans laquelle justement il leur demande de traquer bien ces donc <clears throat> acteurs, euh, donc ces chauffeurs qui causent euh, souvent euh, les accidents le manque de concentration des chauffeurs, l'état des routes et le non-respect du code de, la route, autant de facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui ces accidents notés sur les routes sénégalaises. C'est bien sûr l'avis de Amdijay. Amdijay, voilà, lui, il est le secrétaire général de Cap Trans. Alors, ces propos que nous suivons avec Aïssa Tundiaï may dial yi nga xam ñak nañ seen bakkan ci accident de la circulation parce que day lo xam dafa xaw a euh, brutal di euh, masaw ñu teud ci loolu hôpital te accident de la circulation waral ko di wax nag ni trois facteurs ñu intervenir en général ci accident euh moy koy dawal état talé bi ak état auto bi mais en général le facteur le plus déterminant bi tax accident di am mooy euh, nit parce que vraiment les euh, yu bari de la route li li li ci tali bi defuñu ko ah, bon passé ñun ñu def tournée parce que transport on s'est rendu compte que état tali bi ay li accident dem au niveau de Grand loolu moo ko au niveau de la station Elton de Grand

Euh, il faut que le permis à point bi état introduire pour que léegi ku def points retirer permis c'est ay mettre en place pour apporter des solutions autour élevé d'extantologie parce que actuellement à dire vrai tali bi li muy dafa bari waaw wax Sénégal tali bi dafa ñaan mobiliser réfléchir ci nan lañ mën a génne ci mbir yi parce que wax dëgg yàlla ah accident mu mu a ñàkk mais il faut au moins réduire ses impacts réduire le nombre tu as parce que vraiment moom loolu lañ ñaan yàlla di ñaan yàlla nag yàlla suturaal ñu ba lañ bëgg ci transport yàlla may ñu ko Justement, nous restons toujours dans ce chapitre en marge d'une journée de sensibilisation et de partage sur la sécurité routière à Kaolack. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière s'est prononcé, lui, euh, sur les deux accidents de Banga et de Tabakunda euh, sur donc, le corridor Dakar-Bamako qui ont occasionné 16 morts, je rappelle. Cher Omar Gueye euh, donc, a ainsi fustigé le comportement de certains usagers de la route avant d'un à l'application stricte des sanctions en vue de réduire ces accidents de la route. Alors c'est lui-même que nous allons suivre les propos de cher euh, Omar au micro de TV donc ñu war gën gërëm bu baax monsieur le gouverneur de la région de Kaolack bi nga xam ne moo ñu may opportunité bi tey mu convoquer CRD pour ñu mën ñëw exposer l'eau pour ñu mën nous ñëw activités activité muy sensibilisation Bobo. waaye c'est bien. ndaje bi aussi duñ ci séntu euh, taataan lépp li nga xam ne jafe-jafe la ci wàllum euh, nu ñuy saytoo kaaraange yoon fii ci région Kaolack ak taataan yan solution la acteurs yi si seen bopp mën a génnee ci si jàngoro Beaucoup de defee ñu doxañ ko ci benn euh, donc donc de faire plan d'action indi moyens pour dire a xool nous ñuy ànd ak acteurs yu au niveau local pour saafara loolu mu ex ci document national bi muy plan national de secteur routier. waaye du ñuy aussi que du ñu ñëw parce que euh, gàmmu gi ñëw na ñëpp xam nañu Kaolack euh, dëkku diine la ñëpp nous nañu Kaolack Carrefour la ñëpp xam nañu Kaolack aussi dafa traversé wu corridor Dakar Bamako bi dafa traversé Kaolack muy la nationale 1. ñëpp xam nañu nationale 1. bi 46 des accidents mortels ci axe bi lay amee firnde gi rek mooy démb firnde gi mooy démb ñaari accident yëpp si corridor bi la mooy Dakar Bamako Dakar jaar Mbour jaar Kaw jaar Fatick jaar Kaolack jëm Kaffrine jëm euh, Tamba jëm Bamako loolu la ñuy woowee corridor Dakar Bamako donc l'essentiel des accidents mortels ci axe bi lay amee moy accès bu gëna a accidentogène démb woné na que benn bés rek fukki nit ak juroom benn yu ci faatu ci ñaari accident kessé loolu taxna euh ñu jox attention particulière à cette région ak zone bi yëpp moo tax euh, occasion bi permettre ñu ñëwalé pour gëna a ñaaxaat suñu bop waaye ñaaxaat acteurs yi ñaaxaat automobilistes yi pour ñu respecter mbirum code de la route waye ñaaxaat surtout ñi nga xam ñi ngi dawal deux roues yi bari na fii ci Kaolack euh, lu ci baré euh, daanaka ni ñuy daw ni ñuy dawlee si kaw tali bi ak ni ñu ni leen di moytoo mooy waral yenn accident yi aussi loolu aussi bokk na luy indi accident euh, wax naa ni euh, daañu fexe ba bien entendu sécuriser infrastructure yi te ay la yoon nag nguur gi lu bare def nag ci wàllum tali ña ngeen yeeg faale ni sax ñu ngi naan tali kenn du ko lekk

yi nga xam ne pour sedd la yi nga xam ne pour été la waaye ñun suñu yoon nekk ci dara ku ne bu ñëwee rek ñu monte suñu oto dawal du am adhérence boo defee yenn vitesse yi ak poids bi mu am éclatement mu am frottement mu am éclatement de pneu mu am jéyee donc loolu aussi bokk na si luy sécurité daan si daan si saytu waaye lu ëpp solo ci xeex bi mooy comportement humain moo sookee mbirum accident yu si ëpp li xew démb moo xam Kaffrine moo xam euh, fële ci Mbuur la mooy Bandia luy xew fële ca euh, Koussanar loolu yëpp ay cas de dépassement dangereux doublé en troisième position jàkkaarloo kële di ñëw sa kanam mun sa vitesse ak excès de vitesse bi nga doon daw nga yow dal si kawam mun di jéey bu mag kon loolu comportement nit ki la rewande nit ki la incivisme nit ki la Sénégal duñu toll réew mi nga xam ni fu mu toll nii lu neex waaye def saaga yi si réseaux sociaux yi ku neex lu la neex nga nekkee lu la neex nga defee loolu moo feeñ si kaw tali bi te loolu nag lu koy faj lenn la rek la mooy nga contrôler te nga sanctionné sanction yi sévère mu bañ a am benn intervention ci kenn bu dalee sama njaboot mu daloo si njaboot keneen keneen bañ a def intervention mu doon dafay matale ci ñëpp ñu teg réew mi ci yoon. parce que lii ñu jëm nii ak li ñuy teg ci wàllum politique fii léegi amuñu sa système de contrôle ak ak sanction boobu amuñu ko si réew mi dañuy sonal suñu bopp rek doo ay duñ dem fenn dañuy gën a continuer ay dee compter ay dee rek spécialité bu gën a rëy ci àdduna bokk indi woon it Sénégal dans ces conditions là le résultat bi nga am tant que amuñu ce système de contrôle ak de sanctions efficaces, bi nga xam c'est démocratique tant que loolu amul est ñuy voué à l'échec donc ñu ngi rappeler encore que ñu renforcer la présence des forces de défense et de sécurité sur le réseau routier. tolérance zéro du lenn lu ñu appliquer strictement les dispositions du code de la route te yaakaar naa foofu la ñu jëm kenn deful loi yi ak règlement yi pour def leen ci tiroir duñu def pour appliquer leen et les forces de défense et de sécurité ñoom la ñuy teg pour ñu saytu application de la loi nous parlons politique à présent avec le chef de l'État, Macky Sall. Il a donné hier en conseil des ministres instruction au ministre de la Justice, Ismail Madorfal, euh, de trouver des solutions pour que des responsables politiques tels que Karim Ouad ou bien même Khalifa Ababakar Sall puissent bénéficier d'une amnistie euh, donc, ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre justement de retrouver l'éligibilité. Alors Khalifa Sall et Karim vont-ils enfin entrevoir le bout du tunnel Réponse, c'est avec l'analyste politique Mamadouci Albert que nous écoutons au téléphone de Dame Damdiaye. Le président de la République euh, a donné mandat à son ministre de la Justice, euh, garde des professeur Ismaël euh, Fall, pour qu'il voit les, les schémas, la procédure pour que certains acteurs politiques euh, retrouve le droit civil et politique. Euh, tout le monde pense naturellement à Karim Wade et à Khalifa, qui sont privés de droit civil et politique, qui n'ont pas participé à la présidentielle de 2019. Et depuis lors, c'est des questions récurrentes, hein, le, droit de Karim, le droit de Khalifa, c'est un débat qui a fini par polluer l'atmosphère euh, politique. On est à quelques mois de la présidentielle. Tout le monde a en tête euh, euh, ces, ces, candidats potentiels qui ne peuvent pas participer tant qu'il n'y aura pas une décision rétablissant Karim et Khalifa dans le droit civil et politique. Donc, c'est une décision politique attendue depuis fort longtemps. L'opposition a même annoncé qu'elle va déposer un projet au niveau de l'Assemblée nationale. La société civile euh, également réclame euh, que Karim et, Khalifa retrouvent leurs droits. Donc, c'est une question politique qui est posée depuis quelques mois. Le président accepte de prendre l'initiative. Maintenant, euh, évidemment, si l'initiative est menée jusqu'à bout, jusqu'à jusqu'à terme, euh, il y aura au moins, au moins une paix, il y aura un apaisement du climat politique et, social si Karim et, Khalifa retrouvent le droit civil et politique. Maintenant, la, question de force c'est comment, comment on va y arriver. Est-ce qu'il faut une loi d'amnistie Est-ce qu'il faut une révision des procès Est-ce qu'il faut modifier la loi électorale Pour le moment, ce qu'on entend du côté du PDS, et du côté de Tahaou, c'est que les responsables de, ces deux euh, mouvements ne sont pas pour une loi d'amnistie, ils veulent carrément une révision. quelle va être l'approche du gouvernement Qu'est-ce que le ministre va proposer au président de la République Est-ce une loi d'amnistie Est-ce une révision euh, Est-ce une modification de la loi électorale euh, En attendant, on ne sait pas, on, on ne sait pas. Mais la solution fondamentale, elle est politique. Il faut que le président de la République, quand même, euh, mesure la dimension politique de ces deux affaires et qu'il y ait un dialogue politique pour trouver la solution. Le pouvoir et l'opposition, la civil, civile, doivent quand même se concerter et s'asseoir pour voir quelle est la meilleure approche. Je crois que si on ne trouve pas de consensus, euh, il sera difficile, difficile de trouver un consensus euh, euh, euh, le gouvernement ne veut pas de révision. Le, PDS et Tarao veulent une révision. on ne sait pas qu'est-ce que les autres composants de l'opposition pensent. Est-ce qu'ils choisissent la révision ou une loi d'amnistie Donc c'est un débat de fond. Il faudrait discuter pour trouver la solution politique. Maintenant, évidemment, si Karim et Khalifa retrouvent leurs droits, le champ politique va s'enrichir. On aura un candidat du PDS en 2024, un candidat Tahaou et des franges importantes du Parti socialiste, on aura Sonko, on aura peut-être d'autres candidats. Donc on va élargir, on va élargir le champ politique, le paysage va s'enrichir et ils auront tous les, mêmes chances pour compétir. Euh, euh, dans la dignité, dans le respect, et, le meilleur euh, certainement va gagner. Par la politique toujours, la coalition Tarao Sénégal de l'ancien député maire de la ville de Dakar aurait préféré euh, une révision de son procès. Alors pour le moment, il n'y a pas encore de décision après l'annonce du chef de l'État euh, concernant le cas Khalifa Saleh Karimwa de la coalition. Euh, donc va se réunir très bientôt d'après Aminata Diallo, elle et les membres de Tarao Sénégal dirigés par Khalifa Ababakar Sall les libéraux également, de leur côté, ils se sont prononcés tout juste après cette annonce du chef de l'État. Le secrétaire général à la communication, a fait on Nafissatou Diallo, elle, est catégorique sur la question de l'amnistie de leur candidat, Karim Ouad. Pour elle, l'amnistie est programmée pour les coupables, ce qui n'est pas le cas de leur euh, ministre Karim Maïs Ouad. Alors, parlons toute autre chose. À présent, affaire de viol présumé euh, Caliphone salle il a été déféré ce matin, euh, convoqué ce matin par les gendarmes de Wakam pour une dernière audition. Euh, Caliphone s'est vu notifier sur place son placement en position de garde à vue dans la procédure l'opposant à Adja Diaw vers les coups de 10h30. Alors c'était ce matin, il a été déféré au parquet de Dakar et selon Libération Online toujours, il se trouve actuellement dans la cave du palais de justice en Nature attendant euh, bien sûr d'être édifié euh, sur son sort en outre le voici, il n'est pas encore édifié lui sur son sort. Il s'agit de Sitornour. Euh, donc, euh, en parlant toujours de viol, lui, il joue une nouvelle carte. Selon les sources, l'ancien DG du Code a saisi la chambre d'accusation pour bénéficier d'une liberté provisoire. Il espère ainsi obtenir l'information de l'ordonnance de refus opposé à sa requête et c'est par le juge d'instruction chargé de ce euh, dossier. Alors, rappelons que Sitornour a été accusé de viol. Euh, c'est par sa euh, donc euh, domestique. il a toujours nié les faits. Alors, mesdames et messieurs, ça n'est tout pour l'actualité sur Lugaré TV. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La version Wolof, c'est tout de suite. mbokk yi xarit yi Lougaré TV bisimila ci xibaar yi xibaar yi dañ koy doree lu jëm ci rek euh, naqar rek tiis yi nga xamante ni comité Mouride moom la ñu xëyee tey jilee di rek gennuk àddina euh, Serigne Abdou Rahman ibnu Serigne Abdou Khoudous bu Daaru Musti moom nag yàlla moom na ko tey ji ci suba la ñu xëy rek euh, wax ñu nouvelle bi ni tey ji nag groupe Lougaré TV ci samay kàddu ñu ngi jëbbal seen njaal communauté Mouride bi yëpp rawatina umma islamique bi gannaaw si loolu ñu wax lu jëm ci accident yi nga xam te ni mi ngi gën di wéy fii ci réew mi rawatina ci diwaan bu ndakaaru alors tey jii rek ci suba ñu gis ne benn Ndiaga Ndiaye daanoo tina fële euh, ca pikin lu ko dalee ca autoroute ba euh, jëm ba ca Pikine en tout cas euh, comme ni ngeen ko gisee ci image yi léegi ñu gis na ay nit yu bëri amee nañ ci ay gaañu gaañu yeneen i leeral nañ ko nekk ci suñu yeneen yi jotaayu xibaar. ba tey ci wàllu accident yi ñu gis ne rek ñi ñàkk seen bakkan ñi ngi wéy bay bëri euh, ci rek euh, télé bi euh, foofee ca douane bu kaolack gouverneur ba wala sax procureur bu kaolack mi ngoog moom dafa bind ab nat mu jëbal ko ñii di policier yeeg gendarme yi ngir nag woo leen ñu xoolaat ñoom it seen liggéey jëmale ko ci ñi nga xam te ni ñoom la ci télé bi nu leen neex mi ngoog moom cheikh dian ma ngay interpellé ñoom officier police judiciaire leen wax ni nañ gën a génn yaru wi nag euh, teg ko ci kaw rek ñi nga xam te ni euh, ñoom ñooy rek euh, gàddu bakkanu askan wi nga xam te ni faral di yëpp ci seen i woto ci noonu la ko xamle ci ab rek séminaire wala sax journée de sensibilisation bu amoon foofee ca douane bu Kaolack

Même Dôme. may maam jàll ñi nga accident de la circulation parce que les lois xam ne dafa brutale de ou brutal di euh, masaw ñu accident de la circulation waral ko di wax trois facteurs qui intervenir en général ci accident moi je crois dawal état tali bi ak état autobus. mais en général le facteur le plus déterminant bi tax accident di mooy euh, nit parce que vraiment euh, chauffeurs yu bari respecté wuñu code de la route li li li ci tali bi defuñu ko ah bon passé ñun ñu def tournée parce que ci transport ñu tournée dem tali on s'est rendu compte que état tali bi ay li waral accident dem bi au niveau de Grand loolu moo ko indi benn au niveau de la station Elton de Grand un camion basculé dal ci benn taxi rey équipage ña fa ça veut dire donc ni euh, tali bi xéne tay bu baaxoon accident boobu nañu ko éviter benen euh, ki bi moy état auto yi heureusement que depuis quelques années Le Sénégal a mis en place un centre de contrôle technique boo xam fa la di jaar pour ñu contrôler len yaa au moins ça dana wàññi un peu euh, accident yu bari ndax euh dû à l'état des véhicules benen bi.

ci nan lañ mën a génne ci mbir yi parce que wax dëgg yàlla ah accident moom mënta ñàkk mais il faut moins réduire ses impacts réduire le nombre tu as vu parce que vraiment moom loolu lañ ñaan yàlla di ñaan yàlla nag yàlla suturaal ñu ba lañ bëgg ci transport yàlla may ñu ko laata ñuy tëj euh, chapitre boobee ñuy jagleel wàllu accident yi ab euh, bëccëg bu ñu nee rek jagleel wàllu euh, sensibilisation ci wàllu wi li ñu tuddee sécurité routière amaloon ko fële ci douane bu Kaolack nangaan nekkoon na porox ndoolu nag ci directeur général agence nationale de sécurité routière di Cheikh Omar Gueye moom it mu yëkkati fa ay kàddu jëmale ko ci li xew ci rek réew mi gannaaw ba ñu gisee ne accident yu gënoon metti ci ndorteelu semaine bi mi nga amee woon ca Bandia ak foofee ca Tambacounda

firnde gi rek moy demb firnde gi mooy demb, ñaari accident yëpp ci corridor bi la moy Dakar Bamako Dakar jaar Mbour jaar kaw jaar fatik jaar Kaolack dem kafrine dem euh, Tamba dem Bamako loolu la ñuy corridor Dakar Bamako donc l' essentiel des accidents mortels ci axe bi lay amee mooy axe bu gën a accidentogène démb wane na benn bés rek fukki nit ak juróom-benn yu si faatu si ñaari accident kese loolu tax na euh, ñu jox attention particulière à cette région ak zone bi yëpp. moo tax euh, euh, occasion bi permettre ñu ñëwaale pour gën a ñaaxaat su suñu bopp waaye ñaaxaat acteurs yi ñaaxaat automobilistes yi pour ñu respecter mbirum code de la route waaye ñaaxaat surtout ñi nga xam ñu ngi dawal deux roues yi bari na fii ci Kaolack euh, lu ci bare daanaka ni ñuy daw ni ñuy dawlee si kaw tali bi ak ni ñu leen di moytoo mooy waral yenn accident yi aussi loolu aussi bokk na luy indi accident wax naa ni daañu fexe ba. bien entendu sécuriser infrastructure té ay la yoon nag nguur gi lu bare def nak ci walum tali ña ngeen yeeg faale ni sax ñi ngi naan euh, tali kenn ko lek lool day wone ni effectivement am na effort yu mag yi nga xam état bi def nak ci walum tali donc ñu ngi am un réseau en bon et état de 86 kon c'est très appréciable tali kon machallah euh daañu ko gën continuer def ci signalisation bi daañu gën continuer saytu loolu. daañu gën a continuer jublu ci wàllu luy sécuriser oto yi maanaam visite technique bi visite technique bi dëgg yàlla euh, am na centre bu mucc ay Ndakaaru centre yooyu dañ ko war a lawal ci région yi te xëy na ay procédure marché moo bloqué woon mbir yi yaakaar naa ne si diir diir yu gàtt rek incha allah euh, loolu dina nekk euh, derrière nous ñu gën a mën a saytu nu ñuy joxe visite technique yu oto yi loolu bokk na si luy sécuriser oto yi waaye nag ñu jublu aussi ci li nga xam ne ñu ngi koy importer si pièces de rechange yu yi ñu koy importer d'Europe

comportement humain mon sooke mbirum accident yu ci ëpp li xew démb mo xam Kaffrine mo xam feulé ci Mbour la moy Bandia luy xew feulé ci Koussanar loolu yëpp ay cas de dépassement dangereux doublé en troisième position jakarlo kële di ñëw sa kanam mun sa vitesse ak excès de vitesse bi nga doon nga yow dal ci kawam mun di jey bu mag kon loolu comportement nit ki la rewande nit ki la incivisme nit ki la Sénégal dañuy toll réew mi nga xam ni fu mu toll nii lu neex waaye def saaga yi ci réseau sociaux yi ku neex lu la neex nga nekkee lu la neex nga defee loolu moo feeñ ci kaw tali bi te loolu nag lu koy faj lenn la rek la mooy nga contrôler te nga sanctionner sanction yi mu sévère mu bañ a am benn intervention ci kenn bu dalee sama njaboot mu daloo si njaboot keneen keneen bañ a def intervention mu doon dafay matale ci ñëpp ñu teg réew mi ci yoon parce que lii ñu jëm nii ak li ñuy teg ci wàllum politique. fii léegi amuñu ce système de contrôle ak sa ak sanction bobu amuñu ci si réew mi dañuy sonal suñu bop rek do ay dundem fenn dañuy gëna continuer ay dee compter ay dér rek spécialité bu gëna a ci aduna bokk indi wonit tek fi Sénégal ni ko doxalal dans ces conditions là résultat bi nga am tant que amuñu ce système de contrôle ak de sanction efficace bi nga xamné c'est démocratique tant que lolu amul li ñuy c'est voué à l'échec donc ñu ngi rappeler encore que nous renforcer la présence des forces de défense et de sécurité sur le réseau routier. tolérance zéro du lenn lu nous appliquons strictement les dispositions du code de la route te avons fait foofu ñu jëm la loi yi ak règlement pour def des tiroirs, nous du pour appliquer et les forces de défense et de sécurité Nous la ñuy teg pour ñu tout, application de la loi. gannaaw wàllu accident yi ñu wax lu jëm ci wàllu politique njiiti réew mi Macky Sall démb nag ci conseil des ministres am na ay dogal yu am solo yu mu jëloon bokk na ci rek instruction yi jox jëwriñ ci ñu denk wàllu yoon te Ismaïla Madior Fall gannaaw ba mu koy wax ni tey jii rek dafa bëgg mu jël nag ay saafara euh, ci euh, kii di Karim Wade ak kii di Khalifa Ababacar sàll ngir ñoom it ñu mën a bokk ci langue politique yi gannaaw ba ñu gisee ne yoon mu ngi woon ci seen dodd di leen doon tuumal wàllu koppar gu ñu jël te lewul mi nga ko ci

waaw fi mu nekk nii président jox na ndigal ministre de la justice professeur Ismaïla major Fall pour mu xool euh, naka la mën a def ba ñi nga xam ne mënuñu participer ci élection yi mën a participer ñi xalaat yépp ñu ngi dem ci Karim ak Khalifa loolu lu muy wone mooy que euh, ñu ngi doon xaar bu yàgg boo xoolee dix deux ba tey ji coow Karim la coow euh, khalifa ñëpp muy opposition bi mu ci civil ñu ngi doon laaj euh, président pour mu jël euh, dogal pour que Karim ak Khalifa mën a am seen droit civil et politique loolu bu ko defee lu ñu doon xaar la léegi nag xamuñu xamuñu ministre bi lan la nag la proposer est-ce que day proposer loi d'amnistie est-ce que révision constitution la est-ce que modification loi électorale lu ñu xam li ñuy dégg daal mooy que PDS moom révision la laaj nañ jëlaat procès bi ñu bamtuwaat ko ñu xool euh, Karim am digne respect mu am euh, mu laver honneur am euh, waa taxaw aussi loolu la wax révision bi moo leen gënal léegi nag lu mënte am defe naa pour ñu mën a jaar nguur gi ak pour ak opposition ak société civile dañu war a toog def dialogue politique pour xool ban consensus lañ mën a am pour génn ci débat boobu Karim mën a am droit civil et politique Khalifa mën a am droit civil loolu buñ ko amee démocratie mooy mooy am ndam ndaxte PDS dina am candidat 2024 taxaw dina am candidat bennoo dina am ñeneen aussi ku mën bëgg bokk fekk am nga dossier bu dëgër bu jaar yoon ñëpp mën a participer loolu lañ doon laaj 2019 léegi nag euh, suñ ko amee euh, quand même 2024 dina xel yi dina dina gën a dal Euh, ñoom ku ku ku am dossier bu baax nga participer ku gañe gañe ñoo xam ne sénégalais yi ñoo moo moo la tànn mais pouvoir warul nekk fi daal di xañ ñeneen ñi di di nangul ñeneen ñeneen que que loi yoon dafa war a toog pour ñëpp ku ku mu mënte doon muy candidat majorité bi muy candidat opposition ne jaar yoon euh, fu mu war a jaar su nekkee candidat mu def candidature am su ko ko sénégalais yi mën nañu tànn ku ñu tànn ñu xam ne sénégalais yi mu ñoo la tànn loolu mooy démocratie loolu mooy dundal suñu démocratie. waa euh, coalition taxawu Sénégal di waa kër Khalifa Ababacar Sall yi ñoom nag euh, la ñu bëggoon moo di rek ñu xoolaat euh, seen procès ba nga xam te ne tegoon nañ ko ci seen moom leader ci jamono ji ñuy wax ak yéen jëlaguñu benn dogal ak gannaaw rek ba ñu gisee na njiitu réew mi bëgg na leen bokk boole ci langu politique. jiggilee euh, coalition bi sax ñu xamal ne war nañoo gisee ñoom seen biir euh, du yotul yàgg dara bu ñu sukkandikoo ci Aminata Diallo moom membre la ci coalition taxawu euh, Sénégal ba nga xam te ni Khalifa Ababacar Sall moom moo ko jiitee bu ñu demee ci waa kër Karim Wade ñoom it la ñu xamle moo di ne rek ñoom li ñu tuddee wàllu amnistie nee nañ soxlawuñu ko bu ñu sukkandikoo ci kàddu Nafissatou Diallo moom mi nga xam ni moom moo yore kàddug euh, euh, parti démocratique sénégalais yi moom loolee la xamle moom nee na lu jëm ci wàllu amnistie amnistie voilà dañ koy programmé ci ki nga xam te ne dafa tooñ te ñoom gis nañu ne seen leader musta tooñ gannaaw ba ñu gisee nii am na ay euh, rek ci procès bi am na wàllu yu bëri yi nga xam ni ni nguurug Sénégal dañ ko jox toor ci wàllu dossier Karim Meïssa wadd

itam ci jamono ji ñuy wax ak yéen mu nga ca cave bu pale de justice euh, le temps que nag ñu xool ëllëgam naka lay mujjee ak tuuma gi ñu teg ci ndodam

dossier am gis ne am na lu ci àddu woon moom si dox ñu fàttali ne ba tey yoon ma ngi koy topp ci rek euh, accusation yi nga xam te ni euh, lii di kii di euh, jànqam moom moo ko teg ci ndoddam wàllu viol mi ngi wax mbokk yi xarit yi lii bokk na ci li fi gën a fës ci xibaar fii ci Lougaré TV di lañ jaajëfal ci teewlu bi di lañ jox dig daje suba incha allah.